muy gaynde gu góor gi waaye kat dafa am yeneen ñaari garab yu ca dolleeku benn bi nag jabet lay faj nee na ma nag képp koo xamante ni am nga tawat boobu ñu naan jabet boo jëflantee ak moom diñ ca am lu kawe sa njortu beneen bi nag moom hémorroïde lay faj nee na ma garab bii baax na lool ci hémorroïde waaye moom yemul ci réew mi ndax ay bànqaasam law na ba Europe waaye bànqaas yooyee ji nañu Europe dem ba Amérique du Sud bu dee ca Europe moom dëkk yii may waaja lim képp koo xam ne foofee nga nekk yittewoo ci garab yi rek jàppal ni Serigne Cheikh Ndiaye am na ndaw lu ko fa teewal muy ca France itali Espagne Allemagne Angleterre waaye ca Amérique du Sud tamit dëkk bu ñu naan Brésil am na ndaw lu ko fa teewal ba ca Argentine waaye yemul foofe képp ndax ca États-Unis tamit am na ndaw yu ko fa teewal kon képp koo xamante ni yitte woo nga garab yii rek mën ngaa woote ci numéro bii may waaj a lim muy 78 475 27 82 ma bamtu ko 78 475 27 82 ñoo ngi ñaan nag képp ku jokkoo moom rek yàlla na sa aajo faju ci barke maamam di Serigne daaru Assane Ndiaye. laata ñuy door revue de presse bi nag ñu fàttali leen tey jii dimanche la surnalu Sénégal yi benn ñëwut revue de presse bi dañu koy dooree France fekk fa l'équipe classique bi askanuk France gépp di xaar tey jii le journal bi fa ca xët wu njëkk wa Benissois classique classique nag tey tey jii dafa am ñaan li ko waral moo di kat pape bi jiite chrétien yi ci àdduna gépp wala ñu ne pape bi jiite catholique yi ci àdduna gépp moo demoon ci réewu France dëkk bu ñu naan Marseille kon tey jii nag match boobee am na ñaan te match bu sell nag la ñuy xaar Paris mooy dalal olympique bu Marseille bu dee waa Paris moom jamono ji taxawandee gum nañu li ko waral moo ñoom bi ñu dooree championnat bi ni ñu ko dooree baaxul dara waaye match bi ñu mujj amal mu soxal Ligue des Borussia Dortmund ñaari bal dara bu dee waa olympique bu Marseille moom xam ngeen ne club boobee am na ay jafe-jafe jafe-jafe sax bokk na ci ki leen doon tàggat dafa tekki ndombo tànkam muy Marcelino waaye kat seenu président tudd Pablo Longoria fan yële weesu dafa bankoon ay loxoom ci équipe bi nanguwul woon a liggéey waaye jamono ji nag loole jeex na commencé waat na liggéey bi ak waa olympique bu Marseille kon tey jii ñoo ngi xaar match bu neex ca Parc des Princes Paris mooy dalal olympique bu Marseille bu 18 quarante 45 jotee la match boobee di door ñu jugee France wutali Londres Angleterre fekk fa Star Sport ñaari Manchester yi la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa muy Manchester City ak Manchester United journal bi nag ci waa Manchester United ànd ak Bruno Fernandes ci la njëkk White one man démb nag doomu Portugal bi dafa niroo lool ak doomu Pays-Bas bi ñu naan Robin van Persie jaaroon ay jamono ca Manchester United amal fa ay jaloore Bruno Fernandes démb dafa dugal bit bu niroo lool ak bit yi nga xam ne moom Robin van Persie daan na ko dugal volet bu rafet la doomu Portugal bi dugal démb bi clubam di Manchester United di jàkkaarloo ak Burnley bu compagnie bit boobee nag dafa rafet lool te dafa niroo lool tamit ak bit yi nga xam ne van Persie daan na ko dugal foofee ca Manchester United ndam lu ama am solo nag la ñu am ànd ak Erik ten Hag gëj nañoo am ndam ndax laata ñuy football démb footballoon yoo xam ne amuñu ndam kon ndam li ñu am démb am na solo lool muy waa Manchester United benn bal ci dara la ñu gagné Burnley waa Manchester City tamit ñoo ngi ci journal bi rawatina doomu Espagne bii ñu naan Rodri démb nag dafa mel ni ku àndul woon ak sagoom Manchester City moo doon dalal Nottingham Forest doomu Espagne bi nag yeggali wut match boobee ndax daf ca amal jëf ju ñaaw xoj benn sóoru Nottingham Forest ba jëlee ca ab carton rouge waaye kat yàqul dara ci nam li nga xam ne waa mën Manchester City am nañu ko ci kaw Nottingham Forest gañe ko ñaari bal ci dara bi match bi jeexee nag Pep Guardiola wax na nee na Rodri démb dama ko mere lool ndax li mu def du jëfu jour bu mag jour bu mag day mature maanaam day mat sëkk am na yoo xam ne waru caa dugg waaye nag man bi match bi jeexee comprendre naa ko nit képp la te nit mooy juum. ñu jugee Londres Angleterre wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéenekaay derbi bi askanuk Espagne gépp wala adduna gépp di xaar tey jii la surnal bi fësal ca wu njëkk wa derbi avec classe derbi bu mag la ñuy xaar tey jii ci diggante Atlético de Madrid la ak Real de Madrid ñaar ñii nag ñoo ngi leen di xaar ca match boobee muy Antoine Griezmann ak Jude Griezmann moom bitam bu njëkk lay wër ginnaaw bi mu delloo ca Atlético ak tey jii dugalut bit contre Real de Madrid li mu bëgg nag moo di tey jii mu am bitam bu njëkk ginnaaw bi mu jugee ca Barcelone delluwaat ca Atlético ak tey jii bu dee Bellingham mi tiitaloon waa Real bërki démb entraîné wul woon démb entraîné na tey jii nag noppi na ngir doxal ca derbi boobee bu dee Vinicius tamit mi ngi ci biir ma nga ca liste ba dina départ am du départ loole ci Carlo Ancelotti képp la aju waaye moom Vinicius ma nga ca liste ba ñu jugee Marca yéene kaay jël aas yéene kaay Antoine Griezmann ak Jude Bellingham mi war a jàkkaarloo tey jii le fësal ca wu njëkk wa derbi bi askanuk Espagne gépp di xaar tey jii nag ñaari xar kanam yu bokkul la bu dee waa Real de Madrid moom ñoo ngi doxal ca Liga e-sport ba bu dee waa Atlético mi ko war a dalal ñoom jamono jii ni ñuy doxee doy na waar lool ndax ña nga ca juróom-ñaareelu place ba waaye Atlético nag am na match retard maanaam am na match dabu maanaam match boo xam ne football guñu ko waaye kat seen capitaine bii di Koke moom li mu bëgg moo di départ titulaire ca match boobee doxal bu dee waa Real de Madrid tamit seen gone gii di Bellingham noppi na ngir doxal ca match boobee ànd ca ak Vinicius jamono jii nag Espagne gépp a ngi xaar derbi boobee journal bi tamit ñëw na ci waa Barcelone démb dañoo amal jaloore Celta de Vigo la ñu doon dalal Celta de Vigo mën leen ñaari bal ci dara quatre-vingt-unième minute ci la Robert Lewandowski dugal ñu ne déetawaay ñu doxalaat juróomi minute mu dugal ñaareelu bit bi waaye ki def jaloore moo di Joao Cancelo quatre-vingt-neuvième minute ci la dugal bit bi tax këlëbam di Barcelone am ndam lu ama am solo Frenkie de Jong nag yeggaliwut match boobee te bokkam ci classico bi war a am la 28 octobre wóoragut ndax doomu Pays-Bas bi lu mu gàtt-gàtt dina toog weer ak lu toftal te classico bi la vingt 28 bii ñu dëgmal la bokkam ci classico bi moom Frenkie de Jong nag wóoragut loole la journal bii di AS xam xamle ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa esport waa Barcelone la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa énorme remontada Barcelone démb remontada bu ama am solo la ñu amal bi ñu jàkkaarloo ak Celta de Vigo juróom ñaari minutes ci la Barcelone remonte Celta de Vigo waaye match boobee nag kenn du ca Robert Lewandowski ndax dafa duble waaye bit bi gën a am solo ca match boobe tax Barcelone am ndam Joao Cancelo moo ko dugal démb nag foofe ca stade olympique foo sànni mbattu mu tag bi match bi jeexee ga ñi bégee nañu li ko waral moo kat jaloore ji xam ne amal ko jamono ji nag Barcelone moo jël pee ca Liga e-sport ba waaye tey ji la Real de Madrid du football su Real footballee gagné day jëlaat première place bi waaye su Real amee match nul wala mu am défaite Barcelone mooy wéy di nekk pee ca Liga e-sport ba. yu e-sport jël Mundo Deportivo délire demb nag lu neex lool moo amoon ca stade olympique Celta de Vigo moo fekki woon Barcelone foofee Celta de Vigo nag ànd ak Yago Aspas ñoo mëne woon ñaari bal dara waa Barcelone bi supporteru Barcelone yu bëri sax seen xel génnoon na ca match boobee waaye kat gone Xavi yi dañoo jëmbat fulla am ndam lu ama am solo ci juróom-ñeenti minutes maanaam neuf minutes ci la ñu remonté Celta de Vigo ndam loole nag tax na jamono ji ñoo jël pee ci Liga e-sport ba waaye kat dañuy xaarandeegu match bi war a dox tey jii ci diggante Real de Madrid ak Atlético de Madrid su fekkee Real am na ndam day jëlaat première place bi waaye jamono ji moom Barcelone moo jël pee stade olympique nag démb foo sanni mbàtt mu tàkk journal bi nee na li xaw a yàq fet ji moo di De Jong mi nga xam ne yeggaliwut match boobee li ko waral moo moo di ab blessure waaye Robert Lewandowski moom kenn du moom ca mat boobee waa Girona tamit ñoo ngi ci journal bi journal bi nag dafa sampo laaj kan moo leen di téye li ko waral moo di kan ndorte gu baax la ñu amal jamono jii ca Liga e-sport ba démb mayer ko la ñu dalal dóor ko juróomi bal ci ñett jamono jii ñoo jël deuxième tollo ay poñ ak waa Barcelone muy waa na jamono ji nag ndorte gu ama am solo la ñu amal ca Liga e-sport ba. ñu jugee Espagne wutali itali wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport waa Juve la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa club bii de kenn du ko tagg démb amoon nañu wërsëg bu yaatu ngir nekk pé ca Serie A ba Sassuolo lañ doon jàkkaar lool sunu amoon ndam rek mën nañoo nekk pé ca Serie A ba xaaragum tey ji waa Inter Inter googee sax tey jii la ñuy jongante jamono ji matsam door na waaye kat Juve dañoo nërmelu ci kanamu Sassuolo ñeenti bal ci ñaar maanaam 4-2 la match boobee jeexee kon waa Juve am nañu defet bu métti ki ciy wax nag moo di Maximiliano Allegri mi leen di tàggat nee na défaite yu mel nii kat saison bi benn yoon képp nga koy am kon match bi nañ ki jàngatee waa Juve te fàtte ko jëmbat fulla bu dee waa AC Milan ànd ak Rafael Leao ñoom dañoo am ndam lu ama am solo démbu hélas Vérone lañ doon jàkkaar lool gagné ko benn bal ci dara bit ba am ca match boobee doomu Portugal bi ñu naan Rafael Leao moo ko dugal mu nekk bit bu rafet way démb nag ndam loolee laata ñu koy am ñandu nañu ba ko waral moo di kat Hellas Vérone dañoo taxaw ci seen kaw doxal ca match boobee waaye li ëppoon solo moo di ndam te AC Milan ànd ak Pioli am nañu ko loolee la journal bi xamle ñu jugee Corriere dello Sport dem Milan fekk fa la Gazzetta dello Sport waa Inter la journal bi fësal ca wu njëkk wa bëccëgub tey bii de bu xaajee ca itali ci la ñuy jàkkaarlu ak Empoli match boobee nag dix heures et demi jamono jii may wax ak yéen match boobee war na door inter mooy fekki Empoli tey jii nag goney Inzaghi gi bu ñu amee ndam rek dinañu wéy di dëggël seen bopp ca boppu classement Serie A ba ndax Juve mi topp seen kaw démb dafa daanu ci kanamu Sassuolo bu dee wujju inter yi di waa AC Milan ñoom démb ndam lu ama am solo la ñu am Hellas veron lañ doon jàkkaar lool waaye journal bi nee na nag waa AC Milan ba léegi fàtteeguñu derbi bi derbi bi ñu doon amal weekend bi weesu fàtteeguñu ko loolu bokk na ci li tax démb kenn xàmmewul leen waaye nag